Samatar ah li ñuy waxtaane mooy a alal balaa ku fi toog rek am nga ci wàll tey mooy muñ nattu yi muñ jafe-jafe yi ku fi amul jafe-jafe na yëkkati loxoom ma xool maam Fatou am nga jafe-jafe Ami Njaay ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu sama yaay ab sami fi jóge léegi defe naa ni amul ku yàlla bind ku dul ne am nga ay natt yoo xam ne yàlla teg na ko ci sa kaw benn nga feeñal ko ba ñëpp yëg ko te bu boobaa day mel ni sa ngëm dafay waaj a rekkeeku wala nga muñ ba bokk ci gaañ yi nga xam ne yàlla daf leen a taggoon ndax ni ñu sàlloo woon li nga xam ne moom mooy muñ ku nekk xam na ni àdduna yàlla daf ko bind yàlla dafa bind doomu aadama wutal ko ñaari xaaju dund ñaari xaaju dundu la yàlla utal doomu aadama xaj bu njëkk bi mooy bi ñu nekk fii ci àdduna di fi dundandi nekkandi fi bii nag ku nekk na yëg ni mooy daarul imtihaani wal balwa wal masaa'ibi wal awjaa'i bii ñu nekk muy àdduna bi soxna Jamila ñu ngi lay ziar bu baax a baax àdduna bi ñu nekk kërug mettit la neel benn kërug tiis la neel ñaar kërug naqar la neel ñett kërug mettit la neel ñeent waaye kër la goo xam ni fala budda min al masaibi wal balwa munta ñàkk ngay dund ay musiba lekk-lekk ak ay balaa yàlla moo ko bindee noonu tabaraka allazi bi yadihi al mulk wa huwa ala kulli shay'in allazi xalaqa al mawta wal xayaata li lu yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla moo tagg boppam tey boo toogee di tagg sa bopp da ngay ridicule nit ñi dañ naan est-ce kii wér na am ñoo xam ne danga leen di soof ci saase ndax dañ naan kii fu mu toll day yëkkati boppam moo tax daam loo xam ne yàlla rek la jikk moo tax mu tagg boppam tabaaraka allazi bi yadihi l mulk ki nga xam ni ci loxoom bu sell bi la téye nguuram gi téye nguuru keneen kudul moom moom mi nga xam ni moom moo bind de mu nekk nattu bind dund mu nekk nattu ngir xam ci ñun kan ci ñun moo gën a wommat boppam jëme ci moom ak kan ci ñun moo gën a rafet ay jëf kon àdduna yàlla daf ñu fee indi pour nattuñu xale bi day def examen amul lekk-lekk mu jaral ko lu nekk mais nit ku nekk na yëg ni dafa nekk ci examen mu yëg ak mu ñàkk yëg Cheikh Ba nit ku nekk na yëg ni dafa nekk ci examen fii ci àdduna résultat yi ëllëg la koy jëlee yomal xiyaama mu am beneen dund nag boo xam ni boobu mooy dund gi muy al muy dund gu mujj gi nga xam ni foofu la dund neexee ndax fii comme ni ñu ko waxee la xadd xalax nal insaana fii kabat yàlla dafa bind doomu aadama ci coono mais soo ñimee affronté coono yi jël sa bopp jox sa boroom jaamu ko ni nga ko war a jaamoo lépp luy coono nga muñ ko te yàlla tax ëllëg boo faatoo dangay fàttani fàtte mus ngaa am coono moo tax borom bi subhaanahu wa taala gaaw dànkaafu doomu aadama dànkaafu samata du dànkaafu la olof di wax mooy wax ko boppam rek Oustaz Omar Sow ñu ngi lay ziar alif laam miim axasiba annaasu ay yutraku ay yaqulu amanna wahum laa yuftanuun wa laqad fatanna allazina min qablihim fa la yaalamanna allahu alladina sadaqu wala yaalamanna alkaadibin yàlla nee ndax da ngeen yaakaar ne dama leen di bind indi leen fii ci kaw suuf te du ngeen am benn suusi du ngeen am benn problème du ngeen am benn naqar kenn du leen wax lu leen naqari ci seen der kenn du leen def dara lu leen métti léeg-léeg doo ñàkk li nga doon am léeg-léeg ki nga bëggoon sax mu wax la wax yu doy waar léeg lekk fa nga doon yaakaar sa robinet doon fa ubbee ci wàllu wërsëg mu tëj da ngeen yaakaar ni da ngeen di dund rek ci àdduna te du ngeen am dara dara dara lu leen métti man ta nekk laa yumkin c'est impossible xam ngeen lu tax mu ne ñi fi jiitu woon te baax lool ñi fi jiitu woon te bon lool yàlla tegal na leen ay nattu doon xool muy examen bi kan ci ñoom ñoo dëggal seen bopp ci balaa ja nga xam ne tontu woon nañ ko ca kaw ne yàlla bu ñëwee dinañ la jaamu loo ñu teg dinañ ko tegoo ak nga xam ne biñ ñëwee piix mi upp leen dañoo fàtte daal di wori nit digganteem ak boroomam la njëkk a wor moo tax ku la wor bul coow bul mer léeg-léeg nga gis koo xam ni day jëflanteeg nit diw daf ma wor di ko jooy est-ce que yow waroo sa digganteeg sa borom te bàyyiwuloo ci xel ñaata yoon la la yàlla sant julli ci waxtu wa te defuloo ko ñaata yoon nga mën a génne def ci yoonu yàlla te defuloo ko ñaata yoon nga mën a taxaw taxawaay boo xam ne dina defar diggante te defuloo ko ñaata yoon nga mën a dimbali sa mbokku jullit sa mbokk nit te defuloo ko yàlla nee dama leen indi fii ci àdduna pour nattu leen xool kan ci yéen moo gën a rafet ay jëf waaye xam ci yéen ñi nga xam ni dañoo dëggal seen bopp léeg nga gis ay mbër yu bare bu ñuy waxante bu ñuy signé ay con ay signature yooyu signé contrat lañ koy wax da nga gis ko naan damay dëggal sama bopp mais jullit est-ce que mi ngi dëggal boppam ci àdduna est-ce que yaa ngi dëggal sa digganteeg sa borom ba mu la nee ndax su ma la wàccee di nga ma jaamu danga ni ko waaw est que bi nga ñëwee yaa ngi ci yàlla dafa tas ni ñuy jaamoo yàlla bu njëkk bi ci boppam yeneen yi mu def ko ci nit ñi yi mu moom mooy yi nga xam ne farata la sa diggante yow ak moom julli kenn moomu ko koo koy defal du yàlla bu la yàlla nee génneel sarax nga saraxe koo koy jox du nit nga di ñu lay ziar bu baax a baax baal leen ma def sam baat bi dama amoon angime baat bi ba léegi daal day xaw me ni luy can mais alhamdulillah mhm, waaw mhm. Euh, moo tax a la yokk moo tax yonent bi jàngal ñu sallallahu alayhi wa ne jàngal ñu ñi am ay musiba ak ay balaa ëllëg yowmal qiyaama ñi ko amul woon dañ leen di ñee fii boo gisee ku yàlla jël ay bëtam looy njëkk a wax ndeysaan da koy yërëm nga gis ku yàlla teg ay natt yu metti ndeysaan saan danga koy yërëm nga gis koo xam ne tolof tolof sir tolof tolof lu mu génn rek dem ca la ca des nga yërëm ëllëg yowmal xiyaam day nekk vice versa ñoom ñoo lay xool ëllëg yowmal xiyaam di la yërëm mooy ñi yàlla tegoon ay nattu mhm. yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna yajmau ahla albalaa'i yowma alqiyaama taxta shajaratin tusamma shajarati albalwa wa yaqulu lahum wa izzati wa jalaali mablaytukum li hawaani dunya mablaytukum li hawaanikum alayya innama btalaytukum li hawaani dunya xatta ana ahla albalaa'i yatamannawna an kaana albalaa'u mudaa'ifa wa xatta ana ahla alaafiya naw na an kaanu min ahlil balaa yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dafay dajale ñi amoon ay nattu te muñoon ko foo leer de ñi amoon ay nattu condition bi mooy te muñoon ko fi leen yàlla di dajale faama jànqa mooy ci benn suufu garab boo xam ni dañ koy tuddee garabu nangu muñ nattu te yàlla rek tax ci àdduna noonu la garab ga tudd garab gi mi ngi tudd nangoo muñ nattu nangoo dékku li la yàlla di teg ci ay musiba garab gi noonu la tudd yàlla saxal ko fa ñi amoon ay musiba ak ay balaa ñoom la ko defal mu ne bu ko defee ñoom ñi amoon ay balaa ci àdduna am na koo xam ne ba mu juddoo ba tey wérul am na koo xam ne amul sensu jëkkër te dafa baax lool nekk jigéen am na koo xam ne góor la amul sensu soxna daa baax lool mais soxna su mu am rek ndeysaan am na koo xam ne liggéey bu mu dugal loxoom ñaari fan ñett rek mu yàqu am na koo xam ne lu mu yaakaar mu tas am na koo xam ne ci ay machaqaat rek lay dund ay coono ci la nekk am na koo xam ne nattu njaboot la am njabootam ñoo ko të mu baax lool seetlu lool ba dañ koy yàqal ba dañ naan gisoo leen ko bu fi jógee di waaraate te gisu leen jabaram gisu leen ay doomam am koo xam ne dëkkandoo la ko yàlla nattoo dëkkandoo bu safaanu am koo xam ne patron bu safaanu la ko yàlla nattoo te falee gañ pem yooyu yëpp ay nattu la di am koo xam ne bopp bi seddul mukk chaque jour bopp buy métti fu ne yóbbu nañ ko fa faji ko am koo xam ne biir buy métti fu ne lu ne dépensé nañ ko ci xaalis am koo xam ne dañ naan cardiaque la amee dafa am cardiaque am koo xam ni cancer la amee ndey ndeysaan gis nga ñooñu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam muñ googu loolu leen yàlla tegoon ñu muñ ko te yàlla tax am ñoo xam ne natt nguur lañu am Sénégal amuñu natt nguur a ah. Sénégal amuñu natt nguur doy na waar ku liggéey ku commencé liggéey itam ñu ne na fi jóge te fekk yeggale ko itam xaw ma kañ nga yeggale amuñu patience des fois <laughs> doy na waar oustaz maxtaar nee na ñooy digal luñ dul def <laughs> en tout cas ëllëg yowmal xiyaama ñi yàlla tegoon ay nattu ñu muñ ko dañ leen di defar benn garab goo xam ni fa leen yàlla toogal ñoom seen bopp dañuy mébét yàlla lim leen tegoon ci ay nattu mu yokk ko ndax lañ jot ci ay xéewal te duggaguñu aljana de ñi nga xam ne ñoom yàlla tegu leen woon ay nattu am na koo xam day wax ni moom du feebar lu bari am na koo xam day wax ni moom du feebar am na koo xam daa judd rek tout est bon oto yaa ngi ci këram buy jàngi moo ko yóbbu kont yi fees na dell bu feebaree yóbbu nañ ko fa ñuy faje gaa ñi faje ko fa amul benn souci amul benn problème ñi nga xam ne musuñu woon am ay problème wala xamuñu woon problème wala sax buñ ko amee mënuñu ko woon a muñ dañuy ñee ñu nga xam ni dañoo amoon ay musiba ak ay balaa ci àdduna ñoom ñi ko yàlla tegoon ñoom sax dañ doon wax yàlla yellente kon ñu sax ci bopp buy métti ba dee yellente kon ñu sax ci biir biy métti ba dee yellente kon ñuy tëbaka daanu lekk-lekk du ñu jox njaboot gi daf ñuy të am na koo xam ne day taaba taaba saan nekk boroom kër bu soloo ba romb la tàndaado nga ni kii jeexalul dara et pourtant ndeysaan lekk-lekk cent franc du nekk ci poosam am koo xam ne li mu yor ciy boor kenn xamul nu mu toll leb na ci koñ ba mu dëkk ba mënatu faa am na koo xam ne leb na ceeb leb diwlin boutique ba ba changé na beneen boutique ay nattu lay doon lekk-lekk olof nee na des fois yedd yërëm moom moo ko gën léeg-léeg nga gis nit muy dugg ci yenn giraawaal yi nga naan kii nangam teg ko sa palaas yedd ko ñaanal ko yàlla day gën sax nga di ko ŋàññi léeg nga gis fulaar bu nekk ci mbedd mi xale yi di ko sànni xeer bu tëddee fee jug tëdd fële weññi di ko biiw olof nee na yedd yërëm a ko gën yàlla nañ yàlla dimbali nee na ñooñu dañuy ñee ñi nga xam ni dañoo amoon ay nattu ñi nga xam ni tam dañoo amoon ay nattu dañ doon wax yellante kon seen nattu yi du jeex ba nit ñuy dajee ak seen borom subhanahu wa ta'ala yonent bi jàngal ñu beneen xadis sallallahu alayhi wa sallam bii bi ma koy bind damay bind ba mu yàgg ma téye bi toog di xoole maa jaaxal di yonent bi def ni sallallahu alayhi wa sallam yu'taa yowma alqiyamati bi anami ahli dunia lakinahu min ahli naari ndeysaan xaala fa yuxmasu min annaari xamsa summa ida xumisa fiiha uxrija minha summa qiila lahu yaa abdi hal zuqta naiman qat hal raayta naiman qat fa yaqulu laa yaa rabbi maa zuqtu naiman qat wala raaytu naiman qat yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mu ne ëllëg yowmal qiyaama dañuy indi waajoo xam ni bi mu nekkee ci àdduna ñépp dañ koo ñee ndax ay xéewalam dana gis koo xam ni gàtt xelam day tax day ñee nit ca solo ca na muy solo ñee nit ca oto ba muy dawal ñee nit ca ni mu na ko yàlla binde ñee ca kër ya mu dëkk ñee day am ñu mel noonu gàtt gis-gis la koy ñee na nga ñee ku la ëpp diine booy ñee na nga ñee ku la gën a jaamu yàlla ku la gën a mën a saraxe booy ñee ñeel ñu mel ni oustaz Mokhtar Sarr ñeel ku mel ni Mame Fatou yorul daara mais dafa taxawal daara yi ñeel ku mel ni Ndeye faatu Sakho yarul daa yorul daar mais dafa taxawal daara yi ñeel ku mel ni bu jóob ak ñu mel ni nit ñu baax ñi mais ñee nit ci ay mbubb ñee nit ci or te booy faatu duñ la ko suulaale gàtt gis-gis da xamoo des fois dañuy gàtt gis-gis ñun Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu suñu soppee ñu ngi lay ziar bu baax a baax mun ne yomal xiyaam dañuy indi koo xam ni ku ko gisoon da nga koy ñee ndax ni ko yàlla binde place bi mu nekk mu ne biñ ko indee ñu jël ko nuural ko ci safara benn nuur kese kese nee na génne ko na ko ndax mus ngaa am bànneex mu ne déedéet yàlla musuma am bànneex ndax mus ngaa gis lu neex ci àdduna mu ne déedéet yàlla musumaa gis lu rafet ci àdduna musumaa dund lu neex ci àdduna benn nuur kese moo ko fàttaloo bépp bànneex boo xam ne mus na ko am ci àdduna waa su duggoon ci biir safara nag wal nag war a am ay juróom-ñaar fukki at ci yoon te du yegg fa mu jëm nag war a taseeg ay jaanama ki jiitam nag war a taseeg ay musibaam nag war faa naan jus boo xam ne dañuy wax ni mooy dëttu wànjar muy ndox miy jóge ci yaramu ñu ñuy lakk moom lañ leen di jëlaat di leen ko jox ñuy naan wal iyaazu billah ñu kaste leen ñu nekk fa di yuuxu te kenn du leen fa mën a génne dañ ko ñamal rek ñamali kese lañ ko def mu ne moom musul yëg benn bànneex ci àdduna mu ne borom bi subhaanahu wa taala ne ko yow musuloo am benn bànneex ci àdduna ci jigéen joo xam ne takkoon nga ko ci lekk bu neex boo xam ne lekkoon nga ko ci bonheur boo xam ne defal nañ la ko ci tatagal boo xam ne dem nga ci place ñu tatagal la boo ñëwee ñëpp jóg booy romb yow oto yëpp dañuy taxaw boo nee ñuul na ñu ne kukk nga ni weex na ñu ne tàll mosoo am benn bànneex mu ne laa yaa rabbi mu ne déedéet yàlla mosumaa am benn bànneex ci àdduna michu yaa nga doon reeree nag say dëkkandoo di reere soom bi alal di nga doon pasar pasaree nag fu ne nga tukki fa dem fa nag mu ne déedéet yàlla